mbokku internet yi ñuy bàyyi xel ki seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ki seen émission Sene Sport euh, comme ni ngeen ko xamee ñu ci dalal nag euh, képp koo xam ne rek day yëngatu ci wàllum sport domaine bu mu mënti nekk nag dañ leen dalal tey nag euh, ñu ngi dalal ki nga xam ne moom mooy doomu meewaan ñu fekk nag fi nga xam ne fi lay tàggatoo ci bërëb bi nga xam ne kon fi lay tàggatee yaramam. waaw xam naa damay ànd ak sama cadreur rek kon ñu dugg ci biir euh, xool ana naka lay tàggatoo balaa ñuy séq ak moom waxtaan bi. waaw mbokku internet yi comme ni ngeen ko gisee noonu rek ci image yi jot nañu gis suñu mbër mi muy def ay euh, tàggat yaram yu am solo fi mu nekk nii nag ñu ngi toog ak moom doomu meewaan xam naa nag gën a waxtaan ak moom it gën a xamlante ak moom ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokku internet yi euh, mbër nuyu naa la. waaw kilifa bi fay naa la. ginnaaw bi yàlla julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di sant képp ku ñuy seetaan di nuyu sama waa dëkk nag fi ma dëkk muy Méouane di siyaar ñëpp di bëggee sama gaay yi képp koo xam day bëggee doom Méouane rek foo nekk rek jox naa la loxo di la siyaar lu bëree bëri di nuyu sama gaay yi nag sama gaay yi nga xam ne ñoo defandoo en face peut-être gëj a gise bi am na mais jot moo amatul xam nga waa ASC mi ñëpp ñu samay moroom lan ñi suma ay mag ñi suma ay rakk maa ngi leen di siyaar gaa yëpp lu baree ba di leen wax ni leen fu ngeen nekk rek muy ñu gisee ak ñu ñàkk gise yëpp maa ngi leen di bëgge di nuyu waa fi ma dëkk nag waa Mewane di sant sama yaay ak suma papa suma ñaari waajur di leen sant di nuyu suma ay rakk xam ñëpp di nuyu Thierno Wade bi ma dëkkal maa ngi koy siyaar lu bëree bëri di ko jox wàcc waayam képp kuy seetaan émission bi daal rek maa ngi lay bëgge quoi waaw. Euh, di sant yof fii nag fi ma nekk dama fi am ay nit ñu baax ku ci mel ni ay Cheikh Waly seen okaar ak Papis xam nga Cheikh Waly daal yi ma sol sax moo ma ko jox bi may ñëw sport. waaw xam naa dinañ dikkaat ci sant yi dinaa la bàyyiwaat nga sant gërëm euh, bu baax a baax mais ndax euh, mën nga ñëwalaat ci yi nga xam ne moom lañ la fekk noonu ngay def tàggat yaram yu am solo yooyu. waaw tàggat yaram yi dama fekk sax fi ñu toll quoi parce que booy xool dañuy soog a euh, commencé entraînement parce que dafa am ci lu nekkan quoi bi ñu commencé yàggul woon dañ toog lu ma deux ans bëriwuñ moo tax bu ñu ñëwee presque dañuy def réveil musculaire rek dañuy yee muscle yi waaw charge bi du diis noonu quoi waaw parce que course bi loolu la ñuy liggéeyloo à chaque fois ba nga ñëwaat quoi parce que booy xool bi ñu démarré léegi yàggul. waaw parce que dafa am ci lu nekkan quoi am nga yàlla ak dogalam jaam ak pexem waaw nit ki des fois li ngay def rek ci ngay am ndog-ndog ak gàllankoor loolu nag saa ñëwee rek danga koy delloo suñu borom ko defee suñu borom dalay jox lu gënaat loolu waaw noonu lañ ko jàppe bu ñëwaatee ci entraînement bi noonu yi ñu la fekk ngay def noonu différents état bi est que mën nga si ñëwal euh, bu ne. waa tey nag ma fekk bi ma jëlee velo bi ah après ma dem ci poli bi ma jógee ci poli bi. laa def épaule pec yooyu yëpp pour réveil musculaire la rek. ok pour réveil musculaire la waaw. réveil musculaire la xam bi ñu commencé salle entraîné yàggul quoi xam nga ak géej bokkul. waaw parce que géej dafa naturel quoi waaw chaque instant da ngay am force mais salle par étape la waaw. mais chaque jour bu ñu fii moom parce que fulla ak fayda moo ñu fi indi quoi waaw bu ñu suñu xaalis dañuy ñëw entraîné lu metti waaw. entraînement mbaa da nga am ku leen di suivre par exemple comme ni nga ko waxee sànq xaw ma benn course wante itam côté côté maanaam santé lu am solo la est-ce que tey peut-être euh, yenn yi ni nga koy defee di nga ko xam ba tey du la gaañ ak yu ni mel daal. waaw am na parce que nit ku ne xam nga li sa yaram attan quoi doomu aadama bu ne xam nga li sa yaram attan boo ñëwee da ngay li sa yaram attan rek loolu ngay appliquer quoi parce que saa boo jëlee loo xam ne boo ko sa yaram rek boo demee après soit di ko yëg. boo xëyee yow di nga xam li bokkul ci man waa am nañ coach supérieur mu ngi ci suuf coach boobu waaw professionnel la waaw moom loo xamul boo ko laajee rek mu won la ko waaw xam nga nit moom bu amee xam-xam te soxorul rek dara du jafe waaw. bu ñëwee waxtaan ci làmb bi xam naa en tant que tel tey. Euh, doomu Mewane ban écurie la nekk ana tey lan mooy làmbam lan mooy carrière loolu lépp boo ñu si dikkalaatee. waa man nag bi ma mujjee bëre écurie Yoff laa mujjee bëree ko mais dama démissionné ren maa ngi ci école de lutte baay Tam maa ngi koy nuyuwaale au passage waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar pa bu baax la quoi dëgg fa yàlla bi nga xamante baaxul yàggul ko mais daf ma téye comme doomam te aussi da conseil loo xam ci àdduna sax. loo xam dafa lay jariñ lu dul làmb parce que saa boo waxee mun la dama lay conseiller man ngir sa réussir quoi xam nga kooku nit ku baax la quoi ki lay conseiller pour nga réussir ci àdduna kooku yombul boo ko amee dama koy fonk maa ngi koy char lu baax muy bàyyi tam instant bi école de l'itam laa nekk quoi waaw mais écurie Yoff ma mujjee bëri écurie Yoff laa mujj a bëri waaw mais depuis loor bëree waatuma palmarèsu booy meewaan lan la waaw man nag deux combats laa defaguñ quoi maa ngi nuyu Sidi Diakhaté au passage sama deux combats yëpp moom ma ko teg waa Sidi jaxate bu cees maa ngi koy siyaar bu bëree bëri ku ñàkk ñaan la sama deux combats yëpp mais après bëgg na maa tëggaat quoi mais xam nga yàlla ak dogalam jaam ak pexem yàlla ak dogalam waaw mujj ma tëggalaat mën naa ko xaaral xaaral ba nii waaw <laughs> combat yi nu mu benn victoire ak benn défaite hmm. waaw. bu weesoo dem ci àll bi nag di bëri ji ay mbapat tournoi yi dëkku séeréer li nii. waaw fu ne dem naa ndax làmb rek. waaw damay dem ci mbapat yi moom. waaw ñaar laa xam man nekk Dakar liggéey soit ma nekk ci àll bi ñaar yooyu dama koy def ma nekkee Dakar damay xëy liggéey sama métier yow fekk nga ma fi may liggéey n'est-ce doxantu nga ba foofu waaw loolu laa xam ngoon wàcc maa ngi sport damay dem ci àll bi di bëri. ku ne am na jaar-jaar tey peut-être ma doon laaj si sa jaar-jaar tey eh, ci sa àdduna ana fan nga jaar ak it am na loo dund peut-être sa àdduna neex eh, ak ak yi ni mel lan nga may tontu. Hmm, loolu dafa bëri. waaw xam nga nit boo nekkee ci jafe-jafe ba suñu boroom génne ci rek ba nga koy nettaliwaat. maanaam da nga war a sant yàlla quoi doo bëgg sax di ci delluwaat waaw parce que dund naa fi yu metti fii ci yoofu waaw lu mettee metti sax noo dafa bëri maam asif yi dafa bëri ba mënoo ko wax dafa dem ba moo tax maanaam damay sant yàlla ci benn côté quoi damay dem ba pour dara metteeti ma wala may gis dara mu may jaaxal nii ma gis dara mu dépassé ma loolu yombatul tellement que jaar-jaar yi ma jaar waaw mu metti trop gisoo kenn waaw ti ni Thierno na au passage maa moom ñoo nekk quoi même tey mën naa ni bi may dund mettit yooyu ci jamono boobu moom laa gis quoi na wàdd moom bu seetaanee émission bi moom dina xam yàlla dina xam mais loolu ak àdduna ñoo ànd quoi parce que nit ki dañ ni boo dul am jafe-jafe rek doo xam sa bopp foog ngay am jafe-jafe ci mën a xam yow yaay kan ak fi la nit ñi teg waaw waaw di ko ci nuyu au di ko ci sant nag ni ko gisan naa taxawaay bi ci jamono boobu quoi wax dëgg fa yàlla dëgg neexul parce que nit li nga gis rek nga mën a wax li nga gisul mënoo ko wax waaw jaar-jaar yi metti fii waaw mais ma sant yàlla bu baax nag ma gëm ni àdduna lépp day jeex rek loo gis rek jaar-jaar la ngay gëm aussi nga nekk ndawit dafa metti ndaw dafa metti da nekk ci benn affaire lu ne da koy dégg waa day metti fii Sénégal dañ lay koñe nii dafa metti lu ne nga koy dégg du dem day sonal boppam ndaw pour man bu nekkee ci yoon danga ko war a jàppale di ko jox conseil bu rafet pour mu am courage mais waroo fekk ndaw lu bëgg dara di rayante di jaayante nga koy décourager loo wala ngay yàq xelam loolu baaxul quoi lu ne ma koy dégg façon yàq xel bu nekk déstabiliser lu ne ma koy dégg mais man gëwma lool parce que man dama gëm yàlla man li may def dama ko gëm personnellement man damay lu may def dama ci ànd ak gëm-gëm am yaqin ni lii man suma bëgg-bëgg la quoi man noonu laay fonctionner. dëgg la mais bu weesoo it peut-être jafe-jafe yooyu nga wax yëpp ñàkkul it nga dund lu neex. ki sa àdduna ñàkkul peut-être moom bu dee benn bés mos nga si dund loo xam ne ni euh, lu la neex la peut-être lu la marqué it loolu euh, ana est-ce que mën nga jox exemple. Euh, li ma marke ma xëy dund lu ma ne saa su ma yeewoo rek am jàmm. billaay wallaay dund naa lu ma ne am wér mën a jóg wutali sama bopp rek maa ngi ci jàmm salaam dund naa lu ma marqué parce que tellement que jànkonte naa yoo nga xam ni ba. comme mbégte bu ñëwee sax mënul rey ci man waaw damay gëm ni li mbiru yàlla la rek waaw vraiment parce que jaar-jaar bi daal boo doon toog fii di ko lim du jeex waaw mais lépp sant yàlla rek xëy na jàmm bu nekk ak li suñu borom namm ci moom waaw loolu ala kulli alin day am mënoo ci dara sa destin la quoi waaw Samuel tey ana lan la gën a bëgg loo gën a bëgg eh, ci àdduna want ak it loo gën a bañ. <laughs> waaw li ma gën a bëgg ci àdduna mooy am teraanga dimbali samay ñaari waajur ak suma ay rakk ak képp koo xam ne war naa la mën a dimbali rek nga bokk sama wërsëg ma dimbali la loolu laa gën a bëgg ci àdduna waaw. li ma gën a bañ mooy doomu aadama buy néewal nit wala ngay xeeb nit. loolu laa gën a bañ suma àdduna kuy néewal nit wala ngay xeeb nit rek loolu laa gën a bañ man saa boo ma néewalee rek wala nga xeebal ma man moom loolu sama rab nangu ko ko quoi vraiment waaw parce que nit kenn waru ko xeeb doomu aadama nit dëgg ku xam nit ak kuy nit doo xeeb nit eh, loolu laa gën a bañ ci àdduna kuy xeeb nit waaw loolu moom baaxul ko yàlla nañ ci yàlla musal waaw. peut-être lu may euh, laajaat rek tey ah, du ñàkk gis nga réew mi ni muy euh, ni muy doxee surtout fan génn am na ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne nemeeku nañ ko fi ay manifestation ak bay nit ñàkk seen bakkan euh, ak yooyu en tant que ku nekk si réew mi it am ci kàddu ana noo gisee mbir yooyu. waaw xam nga Sénégal boo fi nekkee da ngay ñaan yàlla jàmm sax fi parce que jàmm ci la lépp xaj. yow bu jàmm amul doo xëy liggéey même man noonu keneen noonu kon benn paa daf may wax lenn ko mu ni ma boo duggee ci gaal bul ni yàlla naa mucc ci gaal gi da ñaan yàlla yàlla na gaal gi mucc bu gaal gi muccee rek ñépp mucc waaw lépp daal dañuy ñaan yàlla rek mu mujj ci jàmm ak salaam nit ñi mën a am jàmm xamaat tey neexul quoi dafa metti ko vraiment dëkk bi dafa metti xam nga da ngay nekk jeune war a liggéey doo liggéey nga yewoo ci kër sa yaay di la xool mënoo ko fajal dara loolu dafa metti dafa metti ci dund naan waxante dëgg ñaan yàlla daal yàlla suñu borom sans situation yi ba ku nekk am ci loo jàpp am loo si mooy metti daal di ñaan yàlla yàlla lépp daal na mujj ci jàmm parce que jàmm moom moo jur lépp te lépp ci la xaj jàmm fu mu amul rek dara amu fa waaw kon nañ ñaan yàlla réew mi am jàmm quoi senegal ñëpp am jàmm ku nekk delluwaat sa liggéey i ñaan yàlla lii yàlla na ci suñu boroom def ndox mu sedd daal waaw ba ku delluwaat sa place daal lañ ci am lu ñu wax. waaw doom Mewane kon dama lay laaj rek xanaa lan mooy nekk sa kaddu gu mujj laataa teg tëj suñu émission bi di Sen Sport. waaw di siyaar ñëpp rek di nuyu ñëpp di nuyu waa Yoff fii ma nekk ko ak waa man suma dëkk. ak suma gaa yëpp maa ngi leen siyaar quoi waaw waa Mewane quoi ñi ma fawandool ñëpp maa ngi leen di bëgg xam nga mënoo tudd tur gars yi dañ bari quoi waa ASC Mbar mi yëpp maa ngi leen di bëgg être nag gëj nañ déggante mais jot moo amatul quoi nit ku nekk dafa am ci loo nekk waaw maa ngi leen di bëgg di wax ni sama xel ñu ngi ci ñoom di siyaar ñëpp di ñaan yàlla jaamaya fi di nuyu sama gaa yi nekk fii nag ku ci mel ni Cheikh Waly seen okaar ak Papis Diop maa ngi leen siyaar bu baax a baax di leen bëgg Cheikh Waly sama gaane daf may yëkkati liggéey di ma jox daal yi ma sol nii sax moom ma ko jox may ñëw fii barki dem xam nga di siyaar benn grand bu dëkk fii nii grand commissaire maa ngi koy siyaar ak grand Cheikh grand Elage grand yu baax la parce que dañ may conseil ko waaw xam nga àdduna nit ki lay conseil rek pour nga jariñu pour naa àdduna nii ngay dundee ak nii waaw kooku yéene na lu baax ko damay wax ni jàppale nit sax gaa jox nit alal loolu jàppale la mais li gën a am solo di conseil nit conseil bu baax moo xam bu fa jaaree day am réussir loolu jàppale nit la waaw te loolu dafa am solo quoi ci sant yàlla bu baax di nuyu sama benn paa papa Diallo quoi depuis njoos man maa ngi koy siyaar bu baax góor gu baax la ci man wax dëgg fa yàlla waaw li leen wax ni leen doom Méouane la woon rek émission bi defaat na retour quoi waaw commencé waat naa suma entrainement waaw maa ngi waajal daal di xaar combat rek incha allah mu ñëw mu bëre ci kàttanu yàlla suñu borom may ma ndam waaw di wax ñëpp nag ñu jàppale ma quoi man mbër laa képp ku ma jàppale man mbër laa surtout waa Mewane suñ côté boobu dafa ñàkk jàppale fu ñu dëkkee noonu Mewane. côté autorité côté dëkk bi yëpp foofu maanaam bu dafa ñàkk dañ gën a mën a toog seetaan quoi que lan gën a mën ko jàppale. dafa ñàkk jàppale ay mbër kaamil am fa waaw ay assamewan ay colonel Cissé booy xool daan bëre mais da ngay dem ba yenn jàppale yi boo ko amul day metti ku bëgg te man li may def sama ambition la man maa ko bëggal sama bopp man kenn dugaluma ci làmb waaw li may def lépp ci làmb maa ngi koy defal sama bopp maa jël sama propre moyen di def sama yaram lu ma bëgg maa ngi koy def côté boobu di ci sant sama benn booy am waaw sama booy bu baax la otoom la yor heure bu ma ko yee guddi ba bëccëg fu ma jëm day taal ñu dem waaw waaw di wax waa Méouane nañu jàppale quoi waaw man bu ma jàppalee ma nekk mbër de waaw di la sant bu baax nag yow ci émission bi parce que depuis bi ma woowee kër dinaa ñëw jël si la nga def loolu xam nga loolu yombul quoi waaw day wane ni yow nitu kàddu nga waaw ci sant bu baax yaa sa caméraman ma leen siyaar lu bëree bëri. yooyu itam ñu ngi lay siyaar doomu meewaan euh, di fàttalikoon kon mbokku internet yi rek yéen yoon seen émission euh, seen Sport tey moom mii la ñu dalaloon fekk si ko ci bërëb bi muy euh, tàggatoo yaakaar naa waxtaan bi am na solo lool bu weesoo sport bi yaakaar naa wax na fi ay kàddu yoo xam ne nii lu ama am solo la. ci li nga xam ne mooy dundin nit ak dundin nit ak ni mu war a nekkee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay moroomu nitam yaakaar na daal ay wax yu am njëriñ la yoo xam ne ku ko déglu rek euh, mun nga cee jëlee loo xam ne kon dina la jëriñ di leen jox dig daje rek kon lu yàggul dara ci Sénégal.